Beydi Ba Beydi da ngay wàcc ci groupe boobu ah, ak central ah yéen ñaar en axe Malick Ba. dem à. à ba na ne. 2007. 2007 ah. exactement ok. Ah. Rahima Fadiga Fadiga ah? tur bi nan la Ibrahima Fadiga ok waaw Ibrahima Fadiga ok Ibrahima Fadiga 2006 ah ok waaw c'est Sidi Sané Sidi Sané ah 2006 ah ok waaw Buri Koné ah Buri 4 4 waaw